Euh, maa ngi lépp tur bi di lépp tamit fu may wootee. benn problème lebal nañ la ko ban jàngat nga am ci ponk yi nga xamante ni indi nañ leen ko. waaw ponk yi man li si jàngat moom mooy Sénégal képp ku ñuy fal balaa ñu koo fal dañoo war xool jaar jaaram. Mhm. parce que euh, Macky kaw Macky Sall dafa war yee Sénégal yi parce que gis nga même sa kër sax soo fa nekkee ji fa gis yenn coow yoo xamante ni. jëmalewul famille bi kanam lu dul da leen ni xajale wala bokk day delloo day delloo au contraire sa kër gi ginnaaw loolu yow su fekkee ne mat nga kilifa yow yaa koy jël takkal ko waaye comme di kii génn wax sànq rek Mame mbay Niang moom il n'a rien compris moom lii dañ koy def loo rek ni yi di wax ño nagu sarax la mais loolu muy dëkk mi Sénégal dañu man bokk naa si du mu ci génne sama bopp parce que bokk naa si ñu ko voté mais dañu juum si tànn bi ñu tànn Macky Sall Macky dañ ko tànn pour mu liggéey Sénégal mais Macky Sall même réseaux sociaux yi woote yi ñuy def nii man bu fi ma nekk nii fi léegi soo fi amee problème ambassadeur bi soo ko waxee dafa lay wax carrément ne leen yéen Macky dafa perte fii dèjà te yéen da ngeen dem si médias yi di wax mais ñun am nañ liberté dem si médias yi wax parce que gisuñu suñu réew lu ñu fa neex lu ñu naqare li ñu gis ku nekk am nga droit wax lu la neex soo gisee woo waxuma sax fi ma wootee damay bañ exposé ñi ma nekkal sama cas sax garaawul mais damay bañ exposé ñi ma nekkal pour te dire que dafay fayantoo te njiit du fayantoo si yenn détails terre à yi même su ma weekul loxoom moom carrément moom nga gis ki nga fay gis soo xoolee ba ci biir moom moo ko yebal mais su fekkoon ne njiit boo bu mat njiit la rek lii nii détail détails yi nii waroon nañ ko dépassé ah. affaire Sonko Mame Mbaye Niang yi waruñu woon nekk si détails yi xam ne si la la ñu waroon nekk hmm. di sensibiliser nit ñi pour ñu dem bindu ci mais gis nga bindu bi rek déjà moom def na si ay sabotage yu dul jeex da ngay dem di lijjanti papier ñu naan la bii jeex na ah, document bii ngay lijjanti document bële te loolu amul woon lu doon def six mois nga yóbbu ko un mois xam nga ak jour yi nga xamante ne gars yi duñ ko tijji cent personnes laa mën a jël par jour loolu yëpp pour jalgati la carte yi del xool ci génne di nga am ñoo xamante ne dañuy def erreur seen carte wala boog ñu ne leen seen carte nekkul fii wala fële ngeen di njiit bu wat bu mat njiit am na lu bëri loo xamante détails yu bëri yoo xamante ne du si nekk ay njabootam duñ si nekk mais Macky Sall yi liggéeyaluñ xaw moom kan lay liggéeyal mais liggéeyalul Sénégalais yi franchement parlant mm-hmm. nit ñi amuñu jàmm seeni xel dalul xoolal tey ñi nga xamante ne suñu xëyul duñu am dépense tey ñooñu fa lañ jëm est ce que dina ndogu ñoom problème boobu ñoom ñoo ngi ay milliards seen i kër seen ministre de sax ñoo ngi ay milliards toog ñun baa suñu xëyul am dépense duñu sóoraale moo tax sénégalais il faut ñu am fulla am fayda mais mool yi doon xeex ak waa yoof yi doon xeex il faut ñu xam ne xeex bi nekkul xeexu pàcc pàcc pàcc il faut ñu xam ne leader bi benn leader la mooy Ousmane moom la ko yàlla def nañ fexe su wootee lu mu muntu woote ñu taxaw nekk ci am exister taxaw fulla ak fayda élection am ñu war bokk bokk ñu warul bokk bokk loolu yëpp ci sénégalais lay dépendre ñëpp jot seen carte ñu war a bokk bokk ñu warul bokk bokk ñu jële fi waa ji indi fi démocratie bu sax tàkk ku fi ñëw keneen tamit te indi woo fi démocratie ak koo mënti doon nag da nga sax doon wëldiw lu la fiy jële indi fi keneen hmm. maa ngi jégalu bu baax balaa moo ko tëj merci beaucoup nuyu ñu waa dëkk ba yëpp yéen it mën ngeen daal def ni moom ñaali ñaali maa ngi lay nuyu bu baax a baax euh, ci woote ci numéro yi ngeen daal di seen ci baaru écran bi ñu fàttali leen ponk yi procès Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko dot nañu koy dàq di ba mais bi ñu dëtmal mais également procès ñaari député fii yi ci mbirum Ami Ndiaye nji bi député APR APR bi boobule moom tamit daal dinañ koy dàq ba 15 mai bi ñu dëtmal seen ay avocat ñu doon sàkku ñu may leen liberté provisoire waaye dañ leen ko daal di gàntal beneen plateforme bu bees mu ñu daal di euh, lancé ni ki démb muy F24 ginnaaw M23 F24 daal nay juddu ci naka noonu ñu gis ci ñu faree ci kujje politique bi mais également parti euh, civil bi ñoom it aussi bokk nañ ci euh, kuréel boobu la mu mel ne euh, li ko tax a jóg mooy rek xeex lu ñeel troisième mandat bi waaye naka la ñuy def ba sàmm lu ñeel constitution bi mu nekk ñetti ponk yooyu nga xamante ni moom leen daal di indi ñu profité nuyu ñi nga xamante ni jamono ji ñu ngi en direct ci bile chat ñaali ñaali ñu ngi lay daal di nuyu bu baax a baax Ro Event Zermen. ñu ngi lay nuyu Serigne Ndiaye Princesse Mia Diallo masur Gueye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Moussa Ba. vraiment am ñu seen fay Gilbert ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Saly Gilbert nee na boo <laughs> boo déposé <laughs> candidat yow lay votel donc loolu am na solo voilà mu mel ni mën ngeen woote ci numéro yooyu 88 628 73 13 wala ngeen woote ci 08 99 25 24 02 wala ngeen woote ci 77 914 64 93 bu ko defee ngeen àddu ci ponk yi nga xamante nii indi nañ leen ko euh, Pape Diop maa ngi lay seen noonu moom nag ba ngay xam ne ce sont certains des DFDS ki sont responsables d'accord voilà ku ci nekk am nga euh, droit wax sa xalaat euh, ci ponk yi nga xamante ni indi nañ leen ko mu mel nii am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum asalaam wa rahmatullah. Hmm, sëñ bi nuyu naa la tur beeg fay wootee. maa ngi lay fay lu Marie Soxna Jaara. Hmm. maa ngi lay siyaare bu baax di siyaare waa Sénégal. di leen ñaanal jàmm lu bari te ko sàkku ci yéen aussi naka koor gi mbaa mettiwul foofu. ah kon moom metti na foofu moom <laughs> ku ne mettiwul rek da sant Diop. Hmm. metti na. mbaadu waaw nañ gën a muñ rek léegi mu jeex li ci des bareetul macha allah. wallaay wallaay ndeysaan noonu lay demee waaw. Mhm. ban jàngat nga am ci ponk yi ñu leen indil. waaw jàngat bi muy njëkk a def ci ponk yi ngeen ñu andil bi ci jiitu mooy euh, procès Ousmane sonk bi nga xam ne moom la ñu renvoyé mm-hmm. euh, comme si que ni ñu tàmm di gisee président Macky Sall di ko doxee rek ci Sénégal muy mal gouvernance mm-hmm. mm, poñe justice bi di ci def lu ko neex ak ni mu ko neexee ak ni mu ko soobee wee mm-hmm. te jàpp mu ne dara du ko ci fekk ndax doon gi mu doon président de la république di protéger ñoo xamante ne nii ay sàcc lañu di sàcc ci alalu askan bi di yóbbuwaate police ak ay gendarme di woote ay justice loolu yëpp gis nañ ko xam nañ ko mais boo gisee lii lépp dafa am lu ko lal ñun dañoo nekk ci calcul politique parce que 4 avril passé boo gisee mu génnee genre de combat yi Euh, drone yi moto yi arme yi euh, armée bi yëpp mu génnee ko pour wan ko Sénégal yi pour jéem leen a xëpp ndax bu amaatee lu mel ni li passé Sénégal yi dinañ yëngu wala du ñu yëngu xam nga gis drone boo xamante ni day naaw ci kaw di man di lancer ay grenade lacrymogène euh, tàmmuñu ko gis fii ci Sénégal mm-hmm. donc lu mel noonu tey bu ko indilee tegal ko askanu Sénégal ba pare nar yëfi caay-caayam yi mu nar bëgg ko ëpp Sénégal xam na ni ñun bu dee jotee dee moo ñu gënal dund looloo tax ñu profité xañ Ousmane Sonko akam ak yelleefam ndax Ousmane sonk amoon na possibilité un mois mu door a def appelam hmm. euh, Cour suprême xaw ma mais ci biir weer boobu ñu ko may sax droit boobu dañ ko ko xañ ren ko woowaat imaginaire parce am na lu ñu nar muy fexe ba du dem deux mille vingt quatre élection te loolu yàlla noppi na ci yàlla la muy def def na ko depuis démb avant tey nañu nangu dogalu yàlla ci Ousmane sonk mu sell mii Ousmane Sonko du ñoom te ñoom du ñu moom Ousmane Sonko fa mu juddoo ak na mu juddoo ak na mu mel kooku ci mbiru yàlla sunu borom la comme ñun nañu noppal seen bopp nii laa defoon nag euh, daanu ba pare tanaan nii laa defoon day yokk ay jéeli rek nañu muñ te dem toogi te noppal seen bopp te xam ne Sénégal ñoom pare nañ ci te mënuñoo wax a wax a wax a wax ba lañ waroon a def ci dix ans wala onze ans ñu mën koo def ci benn weer wala trois mois jamais de la vie troisième mandat mënu fi am du moom moo ñuy xoolal kan mooy yor Sénégal askan bi ñooy tànn te pare nañ pour tànn Ousmane sonk kon na population bi yëpp man koo jóg dem bindu ji pour ñu mun a am carte électeur yu normal ñu mën di voter comme ni mu waree bu demee ci urne yi ñu xamal ko na ko dañ lay duma daan la foofu la coow li nekk mhm. li jëm ci euh, Ousmane Sonko ba tey man maa ngi ci Pastef ba tey gi du ma génn Pastef parce que loolu mooy li ma gën a intéressé ak opposition bi yëpp nañu xam ne li mag Sall bëgg saa bu ñu ko ko mayee Sénégal gii barki Serigne Saliou Mbacke dinañ waaxu fekk xam nga jamono bi ñoo ngi waaxu di fekk nit këram di ko jàpp mais diggu bëccëg la ñuy waaxu fekk la sa kër ren di la jéggi jàll mm. te ñuy xeex pour Macky Sall toogaat troisième mandat ñoo ñëwee ca boobaa ci ñoom la ñuy njëkkee ndax dereti doq du dereti bopp du mooy mbagg comprendre nga li may wax dañu mm-hmm. bàyyi jàmm information Mame Mbaye Niang bës la bëgg Mame Mbaye instant yi nii dafa mel ni benn ñebbe ci cin nu ko neex lay wëlbati ko parce que lan la justice da koo poñe liñ bëgg li justice bëgg loolu la ñuy def dàqum ginaar waxaale sa soxla nag daa taxut ginaar ga sori ñu bëgg mu jàll nañ ko teg ci suuf lañuy lañuy li ñuy fiy indi li ñu fi nar a indi ñun gis nga tekk tekkaaral bii ni am Sénégal nii renvoi bi ñu renvoyé procès bi nii ñun xam na ñu ci jublu de ana juge bi waroon àtte ana magistrat yi lu tax ñu renvoyé ko duñ leen ko wax de te xamuñu li Sénégal yi préparé de ñu ngi toog ne tekk nag te Sénégal àdduna ba mu daj armu bi ci gën a danger gën ci am doole mooy toog noppi toog noppi mooy arme bi nga xamante ne nii kenn amul valeur am Sénégalais yi nañu toog noppi seetaan Macky Sall te protéger seen waay jooju di Ousmane sonk di suñu waay ñu yaakaar ko mille ñëpp 2024 incha allahu rabbi man dina ma jaraa jógee ko fii Maroc ñëw Sénégal voté si incha allahu rabbi bu yàlla sama borom ndax moom laa bëgg te lim ma indil comme projet doy na ma Ousmane Sonko li tax nit ñi topp ko dafa ñëw dugal ci xelu nit ñi loo xam ne nekkutoon ci bopp nit ñi te mu ngi ci suñu réew nag bu fa pétrole feeñee gaz feeñ fa essence zircon euh, euh, euh, feeñ fa ñi nga xamante ne mooy taal pour nga taal ko day yomb ñi ko nar taal nag mooy tubaab bi ndax bul fàtte ne beneen almet bopp bi daa ñuul. waaye boo ko kosee balaa muy tàkk eh, balaa balaa nga ci balaa nga koy jëriñoo faaw mu xonq kon nañ jàpp ne tubaab yi ñoom ñooy xonq nopp yi nga xamante ni ñoom ñooy béré almet yi fas yéene pour taal Sénégal loolu nag na ko Sénégal yi bañ na ko amul benn français buy liggéeyee Sénégal xëy suba ba ngoon jot nga wàcc la nga fa jëlee ci xaalis fanaan Sénégal non non ñun seen koppar du fanaan Sénégal ngir bañ gu ñu bañ Sénégal nit nag mënoo koo bañ ba pare di muucu deretam nañ ñu bàyyee ak li ñuy yor te toog seeni dëkk toog seeni réew asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi jégalu bàyyi ñi bëgg a dugg ñu dugg. merci beaucoup kàddu yi am na solo nga nuyu ñu waa Maroc yëpp ñu fàttali leen man dinañu ko dégg soxna Diarra merci. voilà merci beaucoup. daat nañu koy renvoyé ba le 8 mai bi ñu dëtmal boobu lay décision nag juge Amady Diouf moo ko daal di jël moom mi nga xamante ni moo naroon euh, moo présidé boobu lay euh, science ñu wax ci leneen lancement beneenu plateforme bu bees ñu duppee ko F24 ginnaaw M23 F24 daal dinay juddu niki démb la ñu ko daal di lancé ca naka noonu ñu ngi daal di xamal ni daal ñi nga xamante ni ñoo fare ci kujje politique bi mais également ñi nga xamante ni eh, cellule de la société civile la ñoom ñëpp ñu nga ci boobu lay kuréel ngir rek xeex lu ñeel.